naa nameen ngeen ko moo tax ma naan leen bismillah Macky Sall moo leen di xañ turu yàlla boobu moo tax ma waxaat leen ma nuyu président de la conférence des leaders Khalifa Babacar Sall su ma ko nuyoo nuyu naa leader yëpp nuyu le président Abdoulaye Wade bu Wallu nuyu suñu ñaari yaay yi nga xam ni ay référence lañu assemblée di Adja Aïda Mbodj la Lyon ak Adjaratu Waré Sarr li ma leen di wax mooy li pros di wax Ousmane Sonko li muy wax looluy dëgg Macky Sall xamul lu dul rapport de force Macky xamul lu dul te ñemewu ko Macky Sall la a ragal Ismaïla Yassine te li leen di wax ni mën naa leen cee indil ay preuve man dama def UGTL jaar na Diourbel jaar Bambey di dem Diourbel dem Touba jigéen moo ne ko doo fi jaar jigéen Aminata Tall moo ne ko doo fi jaar Ablaye Wade ne ko xaaral ñu yónnee la hélicoptère parce que bëgguma coow biir Bawol ca jamono jooju fekk na Adja ay Mbodj mii daan ko jàppale ne ko su ma Sall jëlee hélico loolu humilier lu ma la dañ may humilier fii ci Bawol damay bàyyi parti Aïda Mbodj ne ko fii ngay jaax ñooñu doon ko buntu xatal démb ñooñu la defal mu roog soow tey xëy suba teel téléphoné Aïda Mbodj naan ko booy bi ci RFM laa bëgg a présenté ma ko mu ne ko kooku Ahmed Aïdara la tudd sama doom la may démissionné RFM démissionné mu fekk ko booru Tambacounda muy yelawaan di ma supplier y a que six mois qui nous de la présidentielle Ahmed soo démissionné ma dee yow laa yaakaar ñu mel ni mburoog soow mu may tatafu di may di ma yalawaan nit kooku tey moo taxaw di segg ay doomu aadama ci presse bi di nga fi wax doo fi wax Macky Sall nag li tax ma ne leen xamul lu dul rapport de force defante man ñaari exemple dong laa leen di jox gis nga liste bii bu buñ ko bloqué leader yi la neex ak yéen demandez-moi le pourquoi dama dem suñ dëkk benn vendredi ma toog président El Hadj Malick Gakou téléphoné ma ne may est-ce que yëg ngeen ne su préfet bu Sam Notaire nee na liste Khadija Maye Koor ak list liste Aminata Kanté rejeté na leen ci local yi ma jël oto ñëw ña nekk Guédiawaye ak ñi kalaame ak ñi kalaame Sénégal yëpp cour d'appel lañ dem ba des ma j'ai mobilisé tout Guédiawaye ma dem fekk ko ba ci biir bureau bureau ne ko barke Mouhamad Rasulullah liste yi da nga koy valider par force wala ma taal fii Khadija Maye ma ne ko xoolal valider je ne pas aller à la cour d'appel man miinuma Dakar Guédiawaye rek par force da nga koy valider soo ko valider wulee fii ma taal ko tey ma jël sama boo yëpp ñu ñëw wër foofu Ami Kanté di togg ay añ trois jours mu valider ko Macky Sall affecté ko ginnaaw Goudiry boobooy benn ñaar barki dee bi ñu rejeté liste Barthélemy Dias le grand maire est allé à la direction générale des élections daal dugg biir ministère intérieur xeex bi mel ni tulleeg male mu ne leen dinañ ko valider par force te valider nañ eh eh eh day làmbatu te te ñin ñiy def loolu yëpp ëpp ñu fit Sonko mii ëpp ñu fit Sonko dëgg s'il vous plaît s'il vous plaît eh, eh, eh, ndigal li jib na mooy dañu koy valider par force wala ñu gàttandu ji Macky Sall fii Yoff ginnaaw suba lay ñëw par force wala eh ndig man man eh conférence des leaders laa ne je suis signataire Khalifa Sall AVM lañ koy laaj leader la ñun ñëpp ay leader lañ man signataire laa ndigal li maa ko joxe valider par force wala ñu jëli Macky aéroport. valider, valider, valider, valider, valider. mani mani wuy ma city citizen fii Macky Sall xamul droit Barthélemy Dias nangu na sama ndigal kon Dakar nangu nañ sama mani mani mani dama ne ay eh fii ñun ñoo ko moom fii fii suñu suñu neexee dañoo toog fii ba vingt heures may ma Macky Sall son préfet et son ministre de l'intérieur ne connaissent pas le droit loolu moo tax waxuñu droit ñu naan ñu dix-neuf droit lañ ñu jox demuñ fenn bougé wuñ un baa baadoola boo nekkee baadoola da nga koy wan ne yaa ko gën a doon baadoola te nous avons un régime baadoola pire Macky Sall au muy créer ay emploi comme certains africains Didier bu yàggee eh Didier ma ni muy créer ay emploi muy lor ay doomu aadama mi ngi ko njëkkee ci président Ousmane Sonko yow nga yor ay inspecteur des impôts ku mel ni Mame Boye Diao ku mel eh, eh. ma ne nga yor ay inspecteur de impôts yu mel ni Mame Boye yu mel ni Habib Niang yu mel ni euh, euh, benn Saloum mi demoon Kaolack ay inspecteur ay eh, Cheikh Ba Cheikh Ba yu mel ne Amadou Ba waaye yow nga yor inspecteur des impôts yooyu ñuy politique jënd sa carte de membre waa ji ne du ma jënd sa carte de membre nga ne ko dama lay lii lan mooy ndeyam dàq Ousmane Sonko ne ko dootoo fi liggéey ça yemu ca capitaine Touré def enquête enquête boo xam ne ñëpp le capitaine Touré le capitaine Touré. le capitaine Touré capitaine Touré def enquête ñëpp xam ne lépp ay complot la ay sos la pour ngay éliminer yow ci làmb ji koo bëggul bëreel nga ne doo bëreeg moom nga xëy signé ne dàq wa gendarmerie Macky Sall moomul réew mi yemoo fa Macky Sall nga infiltrer la presse je vais m'adresser benn petit mot à mes la presse au Sénégal, comme la justice, elles sont indépendantes. C'est aux acteurs maintenant de prendre leur indépendance. man fi ma nekkoon di fa liggéey waa ji mouvement la yor mu taxaw nee ne gëm sa bopp ma taxaw nee ne yeewi te dama gagné dama gagné maa gagné maa gagné maa yëkkati rek ko Macky Sall ba ci kaw dóor Macky Sall Macky Sall def ay pexe ànd ak Babacar Diagne moomu nga xam ni le sale boulot lay def pendant 40 ans naa fekkam boobu ne génnee leen Ahmed Aïdara ci ëttu presse Babacar Diagne aussi su soutenu ay naa fekk jàppale ko ñu def lu ni mel ñuy segg ñi ak lii dugg na fi gën a fi soyez fii yàlla moo fi ne ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax vive Yewwi vive la validation de notre